waaw léegi bi ci topp mbokk yi mooy maa ngi jot ay audio di jot ay information di jot ay vidéo di jot ay publication ci Facebook ak fu mën a nekk ah ñuy wax ne dama wax ne ah, damay dëggal ne wala damay weddi ne Baye Katim rahimahullahu taala ah, guddi lañu ko suul wala bëccëg lañu ko suul wala nangam lañu ko suul bu dee noonu laa ko waxee sabqu lisaan la bu dee it la ma doon wax te it yaakaar naa ne man noonu laa ko waxee mooy leeral gi nga xam ne leeral naa ko bu baax a baax te Iran Ndaw mi may wax xam li may wax bu baax di wax ne ñi sulli néew bi dañoo juum déedéet bu dee circonstances yi nga xam ne lislaam mayee na ko naqsha am njuumte mënu ci am wax naa ci audio yi ne jullit mënees na ko suul li bu dee guddi lañu ko suul xam naa ne guddi lañu ko suul googu nag la ñuy sant Siise wala ñuy sant Ture dégg ne a ah, waa ji de nee na diwkat guddi lañu ko suul déedéet dama ne jullit mënees nañu ko suuli bu dee guddi lañu ko suul te suul bi kenn fekkewu ko man jot naa information yi leer ne sëriñ kaatim ro sëriñ kaatim bëccëg lañu ko suul kon loolu demee na boor bi ci topp ci jullit boo xam ne dañu ko suul te jullee wuñu ko mënees na ko sulli kon ba léegi njuumte mënul am foofu jullit boo xam ne surtout al muasiruna yi ñu ci mel ne ñoom Cheikh Youssouf Qardawi ñoom ñëpp muasiruna ñoo dañoo wax ne a ah, jullit boo xam ne dañu ko jékki-jékki ray ko wala ñu agressé ko wala ñu jamte ko te kenn xamul lan moo ko jam ñu parax paraxe ko sànni ko duñu ko suul mukk te defuñu autopsie lu ñu ko suul ko tax xamuñu kii lu ko rey mooy enquête yi nga xam ne moom moo xew am na yu ci bari yi nga xam ne muasrine muslim yi nañ ko ala kulli xaal li am solo mooy Iran ndaw en personne la ñuy adressé suñu wax ndax moom tiitul raful ci jàkkaarloog deretu Seydi El Hadji Malick di ko attaqué kon ñun tamit laa naxaafu lawmata laa imin amuñ ci xàjj nag amuñ ci seen képp koo xam ne nag da ngaa bëgg a ci ginnaaw sul nañ ko bëccëg ak sul nañ ko guddi pour défendre Iran ndaw bismillah fal yatafaddal mashkura waaye képp koo xam ne nag da ngaa bëgg a làqatu samay ginnaaw audio pour dal ci Rawxaan Gassama wala pour ne Rawxaan Gassama nangam ak nangam ak nangam loolu yow sa yëf la loolu sa yëf la euh, ku ci nekk di la yàlla di fay ala kulli xaal li ñu ci jublu xam nañ ko ki ñuy waxal duut nañ ko baaraam. képp koo xamee nag jël nga ko wax ji nga séetal féetale ko sa bopp alhamdulilahi rabbil alamin koo xamee tamit wax ji xam nga fa mu jël xam nga fa mu jëm te nga xam Rawaan Gassama ni muy waxee xam nañ bu baax a baax a baax a baax a baax man aw ma jàppal fii bàyyil fii te du man maay taxaw fii nag di attaque benn deret Seydi El Hadji Malick déedéet li xew ci diggante kër yi sama yoon nekkus li xew ci diggante taalibe yi sama yoon nekkus en tout cas li ñuy bañ mooy taalibe buy yëkkati làmmeñam di tas kër Seydi El Hadji Malick te waxna sank ne alaaji malik këram dañu fi yàqoo dañu fi défaro waye kër dañu fi défaro rek waye ku bëgg a yàq kër gi nak ya fi yàqoo alaaji malik kër gi wallahi alazim alkarim dañu fi défaro kenn fi yàqoo waye ku bëgg a yàq kër gi yow ya fi yàqoo te doo fi mës défaro inshallah salamun ala man tabi'a al huda wa amana